man maay man maay Ibra Birane Wane man maay njiitu kuréelu bu ñuy wax Avico Avico fii ci Sénégal maa ngi ànd ak samay naataango maa ngi ànd ak ki nga xamee ni moom mooy njiitu Avico ci àddina bi yëpp mu ngi tudd Mourad Majoul ak ki nga xam ne moo topp ci moom muy Gilles Gompers keneen ki ma féete ndeyjoor mooy ki ñuy wax euh, Michel Jacot moom mooy njiitu beneen kuréel bu xam ne fii Sénégal la dëkk bu ñuy wax Arc-en-Ciel arc en euh, maanaam ñëpp xam nañ ni que ni que bu am ay roppalaan roppalaan yi roppalaan yu may am na juróom benn roppalaan yoo xam ne yii dañuy naaw fii ci biir Sénégal ak ci diwaan yi ñu séq yi nga xam ni moom liggéeyam bokkul ak ñeneen ñi nga xam ni dañuy jaay ay ay ay billets pour mën a tukki tukki yu guddi yi moom li muy defar mooy que ni ñi am soxla ci mën a def ci ci dem ci yenn gox yi yi nga xam nii xëy na dem fa jafe na moom mën na leen jox ay jumtukaay pour que ñu mën a ñu mën a ñu mën a jot gox yooyu ñu ñu ñu ñuy séntu euh, liggéeyam tamit euh, ràññee nañ ko lool ci yóbbu nit ñu nga xam ne dañoo tawat jëli leen place yi ñu nekk ay gox yoo xam ne nii xëy na paj amul foofu indi leen fii ci Dakar wala jële leen dakaar yóbbu leen ci yeneen dëkk yu gën a naat ci wàllum paj pour yóbbu leen euh, kuréel boobu nag moom dong fii ci Sénégal moom moo am xam-xamu ak kattanu def lu ni lu mel di yóbbu ni ñi nga xamee ni ñi ñoom ñoo tawat te ñëpp ñiy liggéey ci wàllum paj fii ci senegal euh, ràññee nañu ràññee nañu kuréel bi te moom la ñuy moom la ñuy sant liggéey bu mel noonu waaw li ñu dajee suñu ndaje tey jii nag mooy yëgal euh, xabaar bi nga xam ni bii mi ngi mi ngi tukkee fii tey senegal ndax Avico bu mag ci boppam dafa dafa dafa daal di xëy na euh, ñëw gisee euh, arc-en-ciel ñu daje juboo ci naka la ñuy boole seeni doole pour que arc en gën a jëm kanam loolu mooy firndeel ni que ni que Avico ci boppam léegi daf ci bokk dafa dafa dafa jënd wàll ci arc ba nga xam ni que léegi arc-en-ciel Jacob bi ko moomoon léegi bokk na ko ak waa aviko ñun la ko bokkal léegi ñu ñëw fii di waxtaan ak yéen euh, li ñu ciy séntu mooy euh, jëm kanam mbir mi liggéeyoon na ko liggéey bu am solo. at yii yëpp jàll ñaar fukki at ak ñeent euh, mi ngi nii bi mu juddoo waaye mi ngi aviko ci boppam sax ñaar fukki at ak ñeent la am loolu moo tax sànq bi ñuy waxtaan ñuy kafaale di wax ni que ni que bi ñu amee ñaar fukki at ak ñeent léegi la ñu sëy ñu ñaar ñëpp euh, li ñu ciy séentu mooy euh, taxawal kuréel bi mu gën a mu gën a mu gën a am doole ah li ñu ciy séentu tamit mooy gën a wutal doomu Sénégal yi liggéey. parce que waxoon nañ ko fi sànq bu fekkee ni que ni que dooleel nañ ko yokkal nañ ko ay mën-mën ak ay pas-pas mën na am tamit ñu mën a wut ay ndaw yoo xam nii yi daañu mën sàkku am liggéey. may jiite Avico fii ci Sénégal fukki at a ngi nii xam nga boobu kon kenn waxuloon waxu ay pétrole ak gaz loolu dafa ñëw rek léegi terewul Avico fukki at a ngi nii mi ngi liggéey fii ci senegal liggéey liggéey nañ fi liggéey yoo xam ne yi ñu bari ràññee nañ ko tamit ci suñu place bu ndaw bi ñu toll ah, ak suñu tuuti xam-xam ak mën-mën jot nañu dolli jot nañu indi kam euh, ay ay jumtuwaay fii ci Sénégal ba yokk euh, maanaam métier bi ñuy wax euh, aéronautique mooy li ñuy wax dawal dawalum ropalaan wala yóbbu nit ñi dëkk dëkk. Avico xam ngeen ni que ni que représenté na fi ay ay compagnie yoo xam ne ni ay compagnie yu mag lañu liggéey nañ fii Sénégal Avico li ñu seet si bi ñu buggee ñëw fii ci Sénégal. Sénégal ci boppam réew mi jiitum réew mi bi mu buggee delloo si suñu ay mbokk yi nga xam ne ni ñoo ngi nekkoon ci ay dëkk. yu bari won ay tolof-tolof yo xamé ni fofu foofu ñoo ngi doon tumuranke ñu melni ay Centrafrique ñu melni ni Libye ñun lañu wo ñun ci suñu bop ñun ñoo dem wuti roplaan yu bax yi organiser euh, delloo si ñooñu ñëpp fi ci biir Sénégal donc ñun yag nañ fi tuuti té def nañ fi tamit suñu waru gar dal ci suñu biir liggéey légui nak dañu bëgg yok xam nga nit ku nekk yokkute lay wut waaw légui nak dañu bëgg yok ci suñu liggéey té ñun suñu ay métier lañu ñu nekk lii ñuy def li yëpp nak mom moy ñun suñu liggéey ñun loolu moo tax ñu daje ku mel ni Michel xamoon xamante woon nañu bu yàgg moom ci boppam léegi soxla na xëy na gën a yokk li muy def moom kenn moo ko moom moom kenn moo ko doon dawal ay ati ati at waaw xam nga boo demee ba tollu fenn fi da ngay wut ku la dooleel waaw loolu moom mooy loolu moo ñu boole.